asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato mbokk julli yi mbokk taalibe yi tey noo ngi fii ci Touba Kër Ñang waa Caravane Mayumba nag noo fi teew ak coordinateur Badara Sène nu bëgg koo jox nag sunu micro mu wax nu tey lan moo nu dajale fii ci Kër Ñang ñaari pono ci Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi ziyaare mbokk taalibe yëpp euh, di ñaanal sëñ Cheikh Mouhamad Mountakha Bachirou Mbacké mu yàgg fi lool te wér Euh, sëñ As ñu ngi lay ziyaare bu baax bi waral tey suñu teewaay fii mooy a fas yéene lancé caravane Mayumba quatrième édition euh, mbokk taalibe yi nga xamante ni amoon nañu yéene ñëw si troisième édition bi te mu jun ñëw ak ñi nga xamante ni jotoon nañoo ñëw muy képp koo xamante ni da ngay yëngu si xasida suñ mbokk taalibe yi suñ mbokk jànkatu xasida yi ñu amoon yéene tey jii ñu daje fii si kër sëñ Xaasum Sarr euh, def fi ngontu loo xamante ni ngontul Mayumba lañ koy tuddee euh, saafonteeg mbokk taalibe yi ñi nga xamante ni képp koo xamante ni ñu ngi si biir groupe bi caravane Mayumba di déggante te xamante wuñu am ñoo xamante ni amoon na nañu yéene ñëw si troisième édition bi te yàlla dogalu ko ñuy déggante si biir groupe bi. ñu def nag tey ngont loo xamante ni ñëpp dañ fii daje ak ñi nga xamante ni ñu ngi li ñu ngi nekkoon Libreville te yàlla dogal ñu ñëw tey euh, ñëw si màggal gi ñu mën a daje saafonte mën a xamante a mën a yaatal nag liggéey bi nga xamante ni mooy caravane Mayumba ba nga xamante ni dina yegg fépp ñi ko xamoon ak ñi ko xamuloon ñëpp maanaam ñu yaatal ko loolu mooy sunu moo waral sunu. Euh, daje bi incha allah fii te dinañ ko gën a yaatal nag si yeneen jataay fas yéene nañ koo def euh, Thiès fas yéene ko def Dakar fas yéene ko def si maanaam si région yëpp pour gën a yaatal liggéey bi nga xamante ni mooy caravane Mayumba loolu moo waral sunu euh, ngont li nga xamante ni moom lañ fi war a daje tey jii sëñ Xaasum nag maanaam ñu mu bis bi mu dara jaaleel ko ah sëriñam soxna maam say Mbàkke ak euh, soxna maam Issa Mbacke Ahlou Café ñoom ñëpp dinañ fi teew ak Serigne Seck ñëpp ñi nga xamante ni ñëwoon nañ si troisième édition bi am nañ yéene fas yéene teew fi ñëpp tey incha allah ñu waxtaan ah def le point ci édition bii nga xamante ni moo jàll fas yéene waajal nag quatrième édition bii nga xamante ni moom la ñuy jublu incha allah loolu daal mooy moo waral sunu jotaay bi fii incha allah fii tey si kër ñang kër sëñ Xaasum Sarr waaw jërëjëf euh, sëñ Badara Sène euh, comme ni ngeen ko dégg rek noonu lay demee ñu ngi ànd nag ak Touba Vision nu fas yéene lépp loo xamante ne am na fii tey ci bis bi dinañ leen ko wan kuréel yi ngeen xam ne teew nañ fi yëpp Touba Vision dina leen ko wan ki leen koy àndal nag def reportage nag mu seen xarit nu gën koo xam ci Ass Mbeng Suukar Alwaniyu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din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 bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbil falaq min sharri maa xalaq wa min sharri gaasiqin izaa waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri haasidin izaa hasad bismillahi rahmaani rahiim qul a'uuzu bi rabbin naas malikin naas ilaahin naas min sharri waswaasil xannaas allazii yuwaswisu fii suduurin naas minal jinnati wan naas bismillahi rahmaani rahiim sadaqa laahul aziim wa balaqa rasuulun nabiyul mustafaa kariim wa nahnu alaa maa qaala rabbunaa wa mawlaanaa mina shaahidiin allahumma arhamna bi qur'ani karim wanfaxna bil ayati wa zikri hakim waj'al lana hujjata yawmi din على من فعنا بما سرت في من الآيات واسكننا بما درت في من المسلات وكف بتلاوة عنا سيئات إنك مجيب دعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من زو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو طعن على خير ما أنسته أو تخجل عند تلاوته أو كسل أو زيغ لسان أو وقف بخير وقف أو دخام بخير مدغم أو إسخار بخير بيان فقنا على التمام والكمال ومعاسب كل إلهنا سقنا فضلا خره مودنا قوم ma al ada wa qalbi lisan wa hablana bihi khayra wa sahadata wa bisara amam wala taqtilana bi zari wa dalalati wa tuhyani wa nabina khalamanna minna min khafi wa kasalan wa amina min asabi khabri wa min suri munkar wa nakili wa min akli didan wa yabbit wujuhana yawma bahti wa tiqi riqabana min an-niran wa yamin kitabana wa yasir hisamana wa saqil misanana bi hasanat wa sabit aqlamana ala sirati wa askina wasfat jinana wa suqna jiwara sayyidina muhammad alayhi salatu wa salam wa akrimna bi liqaika ya dayan اللهم اجعل القرآن اللهم اللهم اجعل عاصما قلوبنا اللهم اجعل اللهم اجعل القرآن عاصما وقلوبنا قلوبنا وجل أحسن وسابق مؤمنا وقائدنا وسائقنا وسائقنا إلى جنة اللهم اجعل إنتنا في وحدة مسايبنا في وحدة ومسبانا في سلمة وضللنا في حرر من قلب في فينة واحسنا به من زيق وأخواء وكيد أخداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم الصادة آجلا وحقق بزيادة آملا وقل بعافية قدونا وأسل وجه إلى رحمتك مثلا وما ألنا واصبر سجال عافيك على سنو ومن علينا بستره ويبقى اللهم اجعل تقوى جزرا وسقط بك رحمة واعتقادنا وأمن من جو وخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما خرخناه ونور ما طلعناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأصواته وسرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومساخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام سبحان ربك رب العزة في ما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت لصالحنا من الخيرات يلو طيب لنا حملنا سهلنا بدنا وخب لنا وخب لنا أدم سيكون آفة ورسايا وخب لنا حس على طاعته وكفنا كثر وخب لنا مكارم الأخلاق مع طيب أصل الستور أصل الأمور كسر القيور بالقدر وصفة من كل داء لمن خليت مدى ومن أبعد عن ساخت لنا الله لا إله إلا تأخذ لنا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يرفع عنده إلى بين إلى ما بل أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بالذين من علم إلا بما وسع كتب ما وتولى ولا يدور ولا لقد جاءكم رسول من anfusikum wa alayhim ma xanantum alaykum bi mu fa ngeen fa in tawalaw faqul hasbiyallah wa la ilaha illa huwa alayhi tawakkal allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami'i ahwal wa taqdi lana biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min wa tarfa'una biha 'indak ahla darajat wa tuballighuna biha aqsa khayat min jami'i khayrat fi khayati wa manat fatana lak fatana barke Sëñ Tuubaa bismillahir rahman وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وجعل للحق من الحق المبين لي قاد ما بان وما ليس بين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقيم لم ينسى تجاه النيران أو جالب الحارين في الغدران لم ينعني درر نار دنيا واتتني الباقي بخير دنيا ملكني ما لم يبه عني وقاد لي بقاء بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفاني مع مماتا قد نهى نفوسا ولتواي ساق وتنفيسا إلى سوانا وانتهاء الموت مع نفوس كل بالفوت لم تنهني مقدمات الموت وقد رفعت ببقاء صوتي لدنني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نهاني جدل رجعان الموت بقاء الله وببقائي يسوع أمدا نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي أولا تزيعني عن الأمراض والممات بقاء حازمي من السماد علمني بقوله إلي البيت رافعا بي المرضية لا شك في كوني بالأمين في وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جانه تامين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاني تامين خاتمة مناجاتي بالقد آذى قد جالني الله تبارك تبارك وتعالى عبدا له وقليلا له وحبيبا له سائرا وباطنا وجارا له وقديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله على ما نقول وكيل وسعيد الله تبارك وتعالى لي ببحث ثلاثة وثلاثين والدمائر وسدمل الأعلام بذلك لكن الله يزد بما أنزل إليك تعية من عند الله مباركة طيبة سعيد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والأولو آئما بالقسط لا إله إلا هو عزيز حكيم إن في inda Allahi al-islaam wa sa'ida Allahu tabaaraka wa ta'aala ana kaatiba haadihi al-uruufi laa yamuutu abadan wa ana al-mawta allazii kaana mutawajjihan ilayhi fii qawlihi ta'aalaa kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu nafsin zaa'iqatul mawti maa tawajjaha ilayhi bi qadratin عظمة ذاته بلا توجيه شيء من إلي أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله أرام ترفع الملائكة إلى توبة وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين الوهي لا ويدخل فيه معهما كاتب هذه الحروف مع جميع كتب والأمتعة إلى مالي الذي يكون معهم فيه أي مريدين صادقين كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى معروف ولا يلازم ما لا يغفى ألا لا تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده حينئذ كتب الله تبارك وتعالى أنا كاتب هذه الحروف يجاهر الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب أربعة مائة سنة بدا سلقة محقق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريقها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مشاة الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذرني أعوذني الباقي من الشيطان عند ممري وفي الأوتان أعوذني الباقي من الشيطان عند ممري وفي الأوتان عزل الباقي من السيطان عند ممري وفي الأوتان عبادة ابتدعت بسم الله وعوكب أذية المنافي وجرت كل الأمر والسكور لمالك الرعيم والسكور وجرت كل الأمر والسكور لمالك الرعيم والسكور وجهت كل الأمر والسكور لمالك الرعين والسكور ذاك الرعين بالنبي رجيمي وآلي وثابي النجوم ذاك الرعين بالنبي رجيمي وآلي وثابي النجوم بالله فارقت نصارى جاولي وخير قدعا بلا تناول بالله فأردت النصارى جيولي وغيرهم قدعا بلا تناول إلى النبي وجعت قبل فندري ما قد كفاني رداك القدر للمتبع وجعت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت قمتي لدى كناكري للمستوى الماوي بلا مناكري هرب مني قبل في بسا مبارس ولسوى يوبسا ملكني الملك عند الدائم لقد كفاني عند التساوم ملكني الملك عند الدائم ما قد كفاني عند التساوم نفعني النافع في لبروري بما بي يغبطني كل ولي إلى النبي وجعت عند بافلي قبل بمغربه أنار مغفري للمنتخى وجعت في قبل بسا ما قد كفاني ودون بسا للمنتخى وجعت في قبل بسا ما قد كفاني ودون بسا سقال السيطان عندك نوى كوني قديم من كفاني البلوى يسوق سلمة لخير الله ذلا ولا إله إلا له يسوق سلمة لخير الله ذلا ولا إله إلا له تواف كل من علي أنكرا بدم الله ونبي لن يسكرا كبرى باق وباني بالمزايا الكبرى إلى ثواي ولخير المنتخى من لم يعبني ويلقى متخى لخير ربي ولخير المنتجب يسوق من صعد في واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مبتدي بمسربي يناديا قدا وبيه ربها ولسواي كل كلب نبها يندم في الدارين من أعادني بعدل باق فتدل وداري من خير بشر ومن السيطار عسلي من جاد بالأوتار من خير بزر ومن السيطان عسلي من جاد بالأوتار من خير بشر ومن السيطان عصري من جاد بالاوتار يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء ابدا يا جنتي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء ابدا يا جنتي يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء ابدا يا جنتي يا سيدي يا قريتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم الخدم أما بك علينا وأدام النعما وكلما استحت إليه خادا لك بلا مزقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ونيزاق كلما أبتار وكفاني سرمدا على وعب وبك لي كان وضاقني الغرب حتى أذير بسر هجم وغرب ودمني إلى صعب المنى وخاتني بالله صابي المنى معتذن بي وخيوبي مها وراد لي كل كنود جمها وجادني بكون سنسم شفاء ولجول الأمة يشق زفاء وكفانا جملة الرزايا بي وساء قريبي المسايا وكفانا جملة الرزايا بي وساء قريبي المسايا فإنه جل على ذاك قدير بإجابة الدعاء والشكر والثناء بحسبك لي قد نبى أنائي لأمن سؤال خيره إني دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال واتنا في المعجزات بالسلام بالآل وثابت مضاف السلام وكن لي الدار وكن معي وكن نسائخا فوق مرامقكن وجل بجاهي آيات سافية لك به ما نجور دافية أبني سلامة وابي عافية وعزمة واجعل نور في ذافية واجعل بجائي عيات زافرة لك به ما الأمر دافرة عبلي سلامة وعبلي عافية وعزمة واجعل روحي صافية عبلي سلامة وعبلي عافية وعزمة واجعل روحي صافية على نبي الله بعدة الرجال وسنة النساء مع المجال على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله على نبي الله سيف الله سيدنا النور رسول الله نجا مرير رجال الله تجي مرير كل دان الله نجا مرير رجال لاقي تجمر كل moom sëñ Seexuna bi bi mu ñëwee foofu Gabon ànd nañ fa ci benn jumaa joo xamante ne bi jumaa ji bi ngi nekk Petit Paris jumaay tijaan yi nekk foofu jumaay tukkulóor yi bisu àjjuma tàkkusaani àjjuma ñu fekk leen ñuy def seen wasifa ma àndoon ak moom ak Serigne Omar Ndiaye waaye keroog tukulóor yooyu li ñu seede ci sëñ Fadilu Buso rek doy na sëkk doy na sëkk loolu firnde na ci te wa ma sahidna illa bi ma alim na nit ku nekk la nga xam moom ngay seede sëñ Fallou nag lu ne def na ko euh, ca Gabon dem na ba ay taalibe Serigne Touba ya fa nekk di liggéeyal Serigne Touba ñu ci bari tey jii moo leen wutal ay nationalité ñu nekk fa di dox ak moom mel ni ñu juddoo Gabon nga xam ne passeportu Gabon lañ fa yor loolu loolu rek doy na ci misaal ku dem ba wutal la passeportu Gabon te du benn nit du ñaari nit du ñetti nit ñi may wax ñenn nit ñenn sax ñi ngi ci biir mbooloo mi ñu ci bari passeportu Gabon lañ yor foofa te à cause de Serigne Fallou Bousso moom moo leen ko wutal foofa loolu rek doy na fa sëkk ah kon kooku dañ koy ñaanal suñu borom defal ko taw feex fa mu tëdd tey. doole ci moom leer te itam fi euh, foofa nga noonu nga xam ne Gabon la taxawal na fa lu am solo yu am solo yu am solo yoo xamante ne bi ku fa dem ban wax la ko da nga gën a xam Serigne Fadilou Bousso mu feggoog imaam Massayer Fall imaam Massayer Fall moom jumaa ji nga xam ne mooy jumaay Montagne Sainte ca Gabon ca Libreville moom mooy imaam ba ma Massayer Fall mi ci laa tolloon waaleykum salaam mbir moo gis rek mbirum suñ borom da cay tàbbi ndax imam Massayer tey jii jumaa ja nga xam ne mooy Montagne Sainte nga xam ne foofu lañ takkoon sëriñ Touba jox ay takk der kenn ku ci nekk ñu jox la fetal ne la diiral ci moom ab ciir tiire ko ku baax ki foofa nu ko takkoon tey moo dem ba la ab teen teenu barkeelu ñu di ca barkeelu ku dem montagne sent xam ne lii may wax jumaa jañ fa tabax ci ndigalal moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada imam Massaer mii moo koy jiite mooy sunu imaam foofa nga xam ne murit tiijaan képp ku jullit tey wax ashhadu an laa ilaha illallah foofa ñu ci bari ajjuma ak xiit moo leen koy jiite kon loolu lu rëy la kon bu ko defee soxna maam sa Mbàkke ahlu kafe moom itam génn léegi teew ci jataay bi ñu ngi lay ñaanal suñu borom dolli sa jàmm te defal la tawfeex yaag sa mbokk ma soxna jaara buso ñi ngi leen di siyaare bu baax moom itam ñëw na Gabon ba mu ñëwee it ci maayombe ji nii la ko doxalee ànd ak soxna maam jaara mbokkam ma ca liwi ñuy ànd di liggéeyal Serigne Touba rek kon ñu ngi ñaan yàlla na seen taxawaay yàgg yàlla na seen jàmm yàgg ci barki Cheikhul Khadim soxna Zeynabu Mbàkke mi nga xam ne tuddoon naa ko sànq moom lañ darajaale bis bi moom lañ ko dara darajaale moom lañ ko tuddee moom ak maam isa Mbàkke ñoo ànd ak soxna maam jaara Mbàkke ak soxna maam Awa Mbàkke kon ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi bu ko defee mbir mii tey ñu nekk dafa am lu ko tax a jóg luy solo si dëgg dëgg solo si mooy barab ba nga xam ne moom la ñuy wax Maayomba te Serigne Touba demoon fa liggéey fa liggéeyam bu ba waa Gabon taxaw ca taxawaay bu am solo di ko woote at mu jot ci lii li sabab daje bi fii ci la bokk ndax suñ mbokku taalibe muy ku bëgg sëriñ Touba ku bëgg xasiide yi muy sëriñ xaasim waaye fu nga xam ne sëriñ xaasim boo ko boo ko dégloo kàddoom rek te gisagoo jëmmam da ngay xam ne ku nu ku ñu waajal la ku yaru la kàddoom rek waaw da ngay xam ne ku yaru la ñu ànd ak moom foofu liggéey liggéey bu bu rafet mu ñëw fii ne damay woote bis boo xamante ne bi dama koy tuddee soxna Zeynabu ñi nga xam ne ñoo nekkoon Gabon te màggal si mën a ñëw fii daje fi gisante ñi nga xam ne ñoo bokk ci biir karawaan bi ci biir groupe groupe karawaan bi di dégganteeg ña ca Gabon te gisante wunu it bu ñëwee fii mën a gisanteek ñoom loolu moo sabab mbir mi delloo njukkal Serigne Touba daal moom moo moom moo sabab bis bi rek kon ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba képp ku fi teew aaju boo fi indaale bala nga fay jóge yàlla na ko Serigne Touba saafara ci barke Cheikhul Khadim kon bu ko defee dañuy jox euh, sunu imaam imaam Massaer Fall bu ko defee. mu mu mu waxtaan bu ko defee dana waxtaan ci solos bis bi ak li nga xamante ne bii moo ñu fi tax dajale ak itam dolluñu nag ci sunu digganteeg nu ñuy def ba gën a xam Serigne Touba.